dafa am atam benn kilifa dugg si fi ni shérif la sëtu yonent bi la ñi dafa bëgg daal nit ñi génn ci affaire tariqa parce que tariqa daganu commencé di ci def ay tournée daal di wër réew mi penc yi daal ba ko sëriñ kër si yëgee dafa dajale njabootam gi mu am ña cay mu seppi leen bindulu ay leetar leetar yooyu mu tasaare ko ci zawaayaa yi tasaare ko ci fépp fu ñuy lal mbalaanu wasifa ni leen am na kilifa gu dugg si ci biir réew mi di wër place yi ñuy defee wasifa di wax ni dafa bëgg nit ñi génn ci affaireu tariqa parce que tariqa daganu ca leetar ba sëriñ kër si def ca fa sa yaskutu fa sa yaskutu amma qaribin min alzamaani fa in lam yaskut fa sawfa yalabu bihi stibyaan mu ne kilifa googu di wër ni dafa bëgg nit ñi génn ci affaire tariqa mu ni maa ngi koy yëgal ni dana noppi léegi bu fekkee yàlla bëgg na ko dana noppi léegi parce que bu noppiwul dana mujj xale yi di ko foye ci mbedd yi waaye mujj gi lañ ca lam ca doon bañ am na kilifa gu toll ni moom fu mu jaar ñu koy baraawoo ci mbedd di ko yuuxoo moo tax wilaan ka tax nga tal ko talu ko te seen naa ji démb yooyu mooy moo moo jur keppaar gi tey ba lu neex waay wax nañu def très attention Sidi Wilane loolu bokkoon na ci li li nga xam ni frère bu mënu ko toléré Cheikh Omar am na ci nag ñuy wax naan li tax mu bañ ko parce que moom moo ba ba ba Cheikh Umar demee aji màkka dafa dajeeg feder bi euh, feder bi di jiite waa màkka ma ni déedéet loolu occasion la tey sax pour ma dajji wax boobu wax naa ko benn kilifa ma ni ko ma ni ko balaa ñuy génne dara ci taarix nanu méngale dat yi ba pare ma ni leen Cheikh Omarul officiellement dañu wax ni mi ngi gane en 1797 1797 ñun la bi 33 la aj la pardon waaw légui bi am 30 ans bi il am kon 33 euh, ans nga tek ko 1797 daf lay 1830. ñi indi ci il a été intronisé khalife général de l'Afrique occidentale en 1833 lu yanu manala parce que taarix bo dégager date yi rek ñu xam ko wa mani 1830 mais Fenerbe est né en 1820 Ou Màkka nag deug dëgg wilaan xanaa gàttunu aliwa bay jiital xale boo xam ne amul sax dix ans yu mat déggoo ma de kon boobu euh, boobu nan ko nan ko nan waa na boobu moom nañ ko croire bu ko kenn waxati Faidherbe bi li doon xoñ-xoñ ji ci xol bi mooy comment comment un nitu daara mën a jóge ci daara def maanaam nangu foor bu Médine ci loxo tubaab yi loolu daal loolu daal yéemoon na Faidherbe lool ñu ci lu bari xamul Faidherbe moo gënoon a dégg wolof wolof yi Sénégal yi parce que sa femme était saint-louisienne soxnaam saint-louisienne la woon benn bi ci des mooy Faidherbe dafa déggoon arab doomu soxna yi gënuñu ko woon dégg parce que Dafko Djang, il a fréquenté ça les les les les universités arabes te loolu lépp da doon préparé boppam ni mu amee nous avons la amee ni nous avons la avons nampal égyptienne la kon dit la attention je suis bi gouverneur du Sénégal fi des na Je invité Ben doomu soxna ben sëriñ mu ñew mu ko ci de di di la laaj ay question di poser ay question fekk lim lay poser suis ah, mom daf ci def ay ba ma yow sa kala gi foq ko sa kala gu réy gi ndek xamoo dara yoy feder bu dan nako def dan na déstabiliser aussi euh, yenn serigne mais Cheikh Omar ko tiñon li lim ko mënulon pardonner moy le fort de Médine te bi Cheikh Omar génnee ci fort de Médine avec tous leurs armements parce que arme lourde yi mu jëlee fofu ci fort de Médine mom la Cheikh Omar tijjee ségu de avril 1857 jusqu'au 18 juillet feder ba soga ñew pour songat for bi fekk Cheikh Omar genn na bu yag pour tegat ko loxo étape bobu mu jitu banjagara banjagara moy fin wu jihad bi jihad bi nak duma ci dugg tay de parce que amaguma jotam <laughs> si ilad ma sha allah taala ah, dafa melna euh, ñi ngi sóoraale waxtu wi ba moo tax du ñu mën a xuus yu bare bare waaye rek ci gàttal euh, am nañu satisfaction ci yi nga jot tontu yëpp ak yi nga jot indi defe naa ne bu ko mbokk yu toppee par benn incha allah dina leen ko jox séquence par séquence. gis nga bu dama wax ni yaayam bi ko nàmpal égyptienne la moom bañ Cheikh Omar Fouti yu tax na mu dem jàngi làkku arab dem na ba def ci moom xasiida mooy alxaaju xad xajja boobu ngay dégg walakin مالا anil huda لكي ينال المالا فدر موكو bu moo ko def ci Cheikh Omarul نانو temps واي دانا سي نيوات موخون الحاج قد حج ولكن مالا عن الهدى لكي walakin المالا anil huda شاء الله كون بوكي نيغي ce سيغ بابكر بو باخ mbokk لي مو ngi ماي nga xamne lu jafe la ci mom wax deug yàlla ku ko xam rek xamne lu jafe la waaye nag ko waxé nit ku am kóllëre la ndax ñun de bam ñu xamee ba léegi mosuñoo bàyyi benn seconde te fu ñu dajeeg moom mu encouragé ñu lu ñu soxla te mu nekk ci loxoom mu jox ñu ko malgré jafe na nag waaye da ngay yëg ni nit ku am reconnaissance la bokk na ci reconnaissance googu am naa vidéo boo xam ne man na presque treize ans boo xam ne maa ngi ko jàngee woon daayira cité waan ba léegi moom mu ko gardé day jékki-jékki def benn at rek yónnee ma ko sama yaram sama yaram daw waaw xam ne rek kii nitu kóllëre la jamono Euh, waaw xam-xam yóbbu ko euh, succès yóbbu ko mais ak nit lay doxal ak euh, principe lay doxal loolu moo tax il faut ñu seedeel leen loolu ngeen xam ne suñu digganteeg moom ay Wilane TV yëpp boolewuñu démb la woon ndax loolu cër boobu la ñuy séddee ba tey moo tax ñi ngi lay gën a dénk Thierno Cheikh ma Tidiane ñi ngi lay wax ñi ngi koy wax Thierno ne ko ku yiw nga amal affaire ku bëgg Cheikh Omar Fouti nga amal affaire démb benn avant tey kon nag loolu tabaarakallaa mënuñu ko ñàkk a dolli suñu diggante ak yow di la ñaanal yàlla mission bi nga bëgg ci Cheikh Omarul Foutiou yàlla defal la ci ndam parce que liggéeyal nitu yàlla yàlla moo lay fay mooy ni nga waxee ne kenn mësu la euh, defal euh, sponsorisé da ngay toll foo xam ne soo waxee fi nga jaar ak nitu yàlla bi sax dañ lay jiiñ ne da ngay bokkale boo mooy tuul ki xelam gàtt day yaakaar loolu parce que nitu yàlla bi la yàlla may pouvoir boo xam ne euh, jëmmam mën na faatu ñu suul ko waaye cëram du faatu. xam nga bëgguma ko bàyyi noonu li waral ma ni jusqu'à présent ba ilaa yawmina haza soow du fa way parce que Cheikh Omar bi mu euh, bi mu conquérir Nioro du Sahel du ma dugg dans les détails ak nan la ko jote ci loxo xaaso yi xaju fi yooyu ci jihaad bi la te aw ma jotam tey mais ba mu fu defee capital bi nga xam ne mooy baasam jur yi mu daan amee parce que Cheikh Omar ku amoon jur la dafa am ay sàmm spécial yu ko daan sàmm ci àllu ñooro bi léegi mu am dëkk bu ñuy wax ñooro toggunde dañu daan dogale jur yi di leen rat di leen sàcc di leen rat bi nga sàmmi constaté ñëw wax ko Cheikh Umar mu ni leen ah accu bàyyi leen mu ni lu ñu mënul lekk incha allah dinañ ko indi fii ñooro muy muy muy ñooro lam julbe dafa am ñooro lam bi am ñooro gunde mu ni lu ñu mënul lekk ñoom lu ñu mënul naan dinañ ko indi fii ñooro léegi bu ñu sàccee ratt gàtt yi ba pare parce que gàtt yi dafa bari dañ koy dogale ci àll bi sàcc ko ratt ko bu ñu ko rattee bu ñu toogee ñetti fan soow mi du way ak ni mali tàngee xaw ma nag dégg nga ma ñetti fan mën nañ ko toog soow mi du way te bu ñu ko gàddoo indi ko ñooro mooy li mu leen waxoon lu ñu mënul naan dinañ ko indi fi buñ ko indee ñoro bu fanané way ñu soog jaay mëna dëngam be ila yawmina haza ku dem fofu tante experience bi di nga xam li mala wax sid wilan lool mun mu ko na ñak ñàkk parce que dama ko tuddu ni ila yawmina mina haza saw du fa way il fallait que ma leeral lutax waxu nitu yalla motax kon lima wax na ñom bo leen di da ngay dem ba gis seen te nag ñi nangul la mooy tax nga am loolu ndax nit dana sonn ci liggéey nitu yàlla te fekk duñu ko nangul mooy waral bu ca du ca am dara bu ca tumanaan duñ ko wallu yàlla nañu yàlla musal ci loolu waaw boo foo fu daje fu nit daje yow ci xam-xam ngay wax ak moom doo tudd benn kilifa ba wax ci lu ñaaw doo jëw kenn man ba ma la xamee ba léegi loolu laa xam ci yow te suma ma xamuloo duma ko sédé waaw kon nak tabarakallah personnalité bobu moy tax nit mëna and ak nitu yalla ba jëriñu ci kon nak yalla yalla sam la euh dañu lay bayyi rek nga taggo lu ma doon ñak ci kàddu yo faté won bëgg ko wax wala lepp lo bëgg nuyo wala lepp lo bëgg waxe ñu joxal la rendez-vous rek ba sa jot ma yalla ko inshallah taala ñu ñëwaat waye dal ma ngi insister loolu man maa koy ñaan sama volonté bop képp ko mo mën jël man vilan TV ma ko Oustaz Babacar jëlun ñu lepp lu ci war ñi dem ba Mali ngir top jaar-jaaru Cheikh Omar loolu c'est très normal parce que la mu bàyyi Mali kenn xamul nu mu toll. Ah, jazakumullah ana di di gërëm nag hadratul euh, malikiya yëpp ak euh, usra omariya bi parce que ñoom ñëpp ma sopp ngir seen maam yàlla xam na ko ñoom ñëpp ma sopp ngir seen maam tabaarakallaahu léeg-léeg damay daje ak ay doomu aadama yoo xamante ni man te pourtant man dama am sama accoutrement bopp boo xamante ni je m'habille très simplement nag mais nit ñi dañuy da ngay wax ni parfois euh, ñu ni man voix bi la xamé dé xol xol après ci ngay xamé ni aussi amna ko xamni boko ni laal war nga xam foy tek sa tank war nga xamat tamit loy wax ak loy def te <laughs> ku toll ni Cheikh Omarul Fouti boko ko laal ba nit ñi fuñ la xolé rek seen xel dem ci mom ah war nga xol foy tek sa tank te Cheikh Omar nak moy molana Cheikh El Hadj Malick parce que moy domou leram moy donom aussi haqqan donc am na loo xamante ni wallahi shahidallah iza kalaamal iza iza iza kaana al kalaamu kalaamul xaq yuwaafiqu al utasha wal azan. Mhm. dëgg la parce mhm. lépp daje ci loxo. Mhm. jaay loolu eh, dama la ciy may rek benn bu ndaw te wax naa ko ndaayaan nit ñi bu ñu yaakaar ni wax wax boobu waxu falaa falaa la wala wax la nii rek dem déedéet man jàng naa ci gëstu ci Cheikh loo xam ni xanaa ma yóbbaale ko yàlla na yéex mais duma ko ŋàng. am na yoo xamante nii da nga naan kii fan la jëlee lii xaw ma ndax li may wax dégg nga ko keroog ci xaal rek parce que waa ji dafa wax cofeelu sëñ Cheikh Tidiane taal ci sëriñ Babacar Sy xëy na beneen yoon dinañ dugg ci xasida bi mu mujj def ci sëñ Babacar Sy yàggul mais ku sopp sëriñ Babacar Sy la ma ni wax naa ko ndaayaan ma ni cofeel dañu koy donnante loolu lu yomb a la kuy sa maam alaaj Tidiane ñang moo jur waajuram attention kuy sa maam cofeel dañu koy donnante te tiijaan tijaan boroom yaa layte nii kuntu na xam nga ki dem ba naan Cheikh Al bu ma sañoon ma nekk dàll dàll boo xamante nii boo jógee rek pour dem nga sol ma aw akunu sariran lil xalifati wala ma doon mbaxana moo xam ni bu Cheikh xalifa jógee rek ma nekk bonekaare bu tedd ba muy teg ci boppam loolu cofeel est-ce mën na romb loolu mais kooku moo juru way juru Serigne Cheikh Tidiane Tall Macky ma teg ci nii waxuma Seydil Hadji Malick mais da wax ni Cheikh Omarul Foutiyu majalis yi mu daan def daan na def bu toogee am am benn mala bu ñëw ba ci wetam mu beegu mu ci majalis mala bi rek am ku jogrek jóg rek hal. ko cheikh omar xaal ni ko accu oo oh! ko babacar si ibnu alhaji malik te booba cheikh alhaji malik si ganeegul àddina li may wax day dépasser entendement nit ñi mais dara du ci waxi bakkan ay wax yu la donc il faut que ñu xam ni alaaka baatiniya la jiitu na juddu kuy signalé yow tamit yow tamit bu demee ba ni ko <laughs> woy ko woyam réy woowu nga nga xam ni moom mooy pareem ci lu gàtt rek nettali naa ko ci benn vidéo ni dafa feebaroon mais mais ni ko ni ko Cheikh Omar euh, misaale boppam mooy dafa tëdd ba guddi mu gis Cheikh mu gis benn benn benn waay bu yéeg ci kaw fas wu weex tal gis nga wax da koy révéler mu leer sol yére yu weex tal takk turban bu weex tal yor jaasi jaasi ju weex tal di melax mu gis ko ci suufu garab gu naat Cheikh xalifa Khalifa ñëw ba tiim ko ni ko man ant yow la kan Cheikh al moo njëkk a wax ci gént gi mu ni Cheikh Omar yow la kan ci gént gi mu ni ko ana الشيخ عمر ابن سعيد الشيخ الحاج عمر الفوتي ابن سعيد لولا كتونت أنا الشيخ الحاج عمر الفوتي ابن سعيد موتاخ بام كوي واي وايام وا لولا بنت موم لا واتي حرف بار حرف الشيخ الحاج عمر الفوتي ibnu Saïd nam ko gisee ci gént noonu la ko waye kon ñoom ñaar alaaka baatiniya la du zahir <laughs> moo tax mu ni sama proposition ca xadara ba pour ma doon xalifa cheikh cheikh Omar moo introduire dossier ba kon kenn du mag ñi Seydi Bilal macha allah eh, jërëjëf sëñ Babacar yal na yàlla fay yiw yal na yàlla yokk xam-xam bi te barkel ko yi nga yéene yëpp ci xadara yi nag xadara Cheikh Omarul Fuuti xadara Cheikh Alhaaj Malick xadara yi ci des yëpp kenn ku ci nekk ñoom sopp nga leen yéene nga leen ndam loolu nag yal na yàlla may la tabaarakallaa wér koo ko defee ndax looy ñaanal nit li ci jëkk mooy wér yàlla na ko yàlla defal ñu ngi ndokkeel encore Serigne Cheikh Tidiane Tall ci bésam boobu ren la yàlla dogal dogal ñu dem ñu dem ca euh, ñi sant bu baax dem gañ fa dem yëg nañ ne bërëb bu jaamu yàlla gu ànd ak dal mo fa am kon nak lolu doyna sante yàlla bu baax a baax ñaanal khalifa bi Thierno Mouhamadul bashir yàlla ko yàlla degeural domam ñëw na fa teew fa teewaay bu rafet te lolu moy teway mbollem fam yu Cheikh Omarul Foutiyu tabarakallah ñaanal sëñ babakar Mouhamadul Mansour juma ji musumbu mu sumb lol ma sha allah xel dal ci xol sedd ci yàlla nako ko waxuma wax ma ko way julli ci ay at yu bare bare bare bare ànd ko ay rakam ak ay doomam yëpp ci barke Cheikh Seydil Hadji ñi gërëm suñu wëllëre Seydou Saas Masila Kan moom itam mu tukki tukki tukki farata ca biti réew yàlla na ko yàlla indi si jàmm waaw waaw waaw sama diggante ak moom sëñ Moussa Al Amin moom a booleeg moom loolu lu yàgg la depuis 2006 2007 boobu ba léegi nag yàllaa ngi ñu sàmmal suñu waaw suñu Al Amin suñu ak moom mu ngi koy sàmm di ko rafetal kere rek sëñ Moussa mu ngi koy tooñ naan ko Masila Wilane maak yow mooy suñu collaborateur <laughs> kon nag loolu yàlla yàlla mottali ñu bàyyi la rek nga tëj moom day damay wax rek hada min allahi tajri xawlahu l usru yaa ashbaha annaasu bil faruqi yaa umaru alqaadi ma jaxate kala ku ku ku soppoon Cheikh Omar ndeysaan ku soppoon Cheikh Omar dafa amoon yéene jël ci moom tariqa bi ndeysaan mujjul sotti xam naa yeneen i waxtaan waaw après ci la ko jàpp ci Cheikh Samba jaadana ndeysaan moo tax ca wayam wu réy wa mu wax Cheikh Omarul Fuuti hada من الله تجري حوله العسر يا أشبه الناس بالفاروق يا عمر كون ويلان فين wilaan fi nga لاي تجي foofu lay tëje muy xadara sëñ nga xamanteni ñun suñu lépp fofu la ci nday ak ci bay suñu lépp fofu la ci nday ak ci bay di fàttaliku bu baax suñu serigne ba nga xamni moñu tabal ci tariqa cheikh muy serigne mohammedul Mansour al Maktoum momit nek ci tukki farata yal nako yàlla sàmm atalallahu umrah di ñaan yàlla tabarakallah yal na yàlla tapé xol yi yal na yàlla euh Cheikh omar mi ñu fi tay euh nga xamni nga balma de waron na tëj mais li ko lié ak kër si moo doy waar xam nga kër goo tàbbi rek Cheikh Omar am na fa jaar jaar kër goo tàbbi rek Cheikh Omar am na fa jaar jaar dinaa révéler tey benn affaire ci xadra sëñ Babacar si mooy Serigne Mounirou Sarr yàlla ko yàlla yërëm ñu bari dañuy posé wu la question Mounirou bi fan la jógee. mais moom ñu ngi ko tuddee sëriñ muniiru taal doomu cheikhu umarul fuutiyu moom ba bàmmeelam a ngi bànjagara kooku yilif na bànjagara de 1888 jusqu'à 1891 toog na fa ñetti atu xilaafa kooku la ñu tuddee sëriñ muniiru saar maami suñu jarbaat suñu soppe mu Cheikh ma Tidiane Sarr Pape Cheikh doo ko suivre mukk ci waxtaan mu waxtaan ba jóg te dégg ko mu tudd Cheikh Umar ku ko sopp la man mii noonu la mel ci man ci cofeel parce que ki la sopp ba wax la ko kooku amoo payam ndax baayam nag sëñ Mansour saar moo ñu yar ci ko ñu jàmm gën Sarr soxna ki ne yaayam di njabootu Serigne Cheikh Tidiane si moom it moo ñu yar ëttu seigne Babacar si donc Pape Cheikh ñu ngi koy ziar de passage mais mamam dafa am tarikh ak Cheikh Omarul Fouti xeyna ci yenen jamono dinañ ci dik waye dal haza wa billahi tawfiq wa ma tawfiqiya illa billahi wa ma zalika ala allahi bi aziz